opposition est en train de battre campagne ndax jàpp nañu ne le processus dafay continuer vous où est-ce que vous en êtes vous Benno Bokk Yaakaar. oui mais bon nekkuñ ci campagne loolu moom c'est clair mën nga nekk nag en politique. Mhm. Ah, je viens de la semaine dernière de ma base. c'est une que je n'ai jamais quittée. Mhm. moo tax ay hommes politiques yu wax fii ya ci micro yi xam nga damay toujours y les. il y a des il y a deux types d'hommes politiques cravate euh, euh, bëgg a jaaxal réew mi ak ñi nga xam ne ñuy téye seen i base di liggéey. Mm-hmm. foofu mooy mbir mi affaire bi du ay caravane rek di di show ça c'est c'est de la comédie. la politique c'est c'est il y a il a à faire. Ah, la base sur le terrain vous, ah, vous où est-ce que vous en mais nous on en présence en permanence sur le terrain en permanence en permanence na bokkul ak ñuy def show c'est différent il faut que journaliste. votre candidat euh, il il reste votre candidat Amadou mais jusqu'au secrétariat exécutif national tout dernier le président de la République a rappelé les principes moi li ma nekk mooy li li war a gën a am solo aujourd'hui aille dans ce dialogue là qu'on règle les questions électorales et que le Sénégal soit mis en avant c'est le plus important le reste des petits débats ou des gens qui n'ont pas de sujet ou des gens qui ne signifient pas beaucoup de choses et qui essaient de manœuvrer et de manipuler dama ne ndax Amadou Ba reste votre candidat. waaw mais man ma wax la tontu laa <laughs> loo bëggoon ma wax la. nga ne ma oui il reste. mais dama ni soutien bi ñu doon ci yéen ay mois ci ginnaaw dafa mel ne dafa dafa xaw a wàññeeku jëm ci Amadou le discours a un peu changé. muy yow muy Doudou ah, euh, Doudou Doudou nan Doudou Doudou eh, Doudou Ka ak ñeneen. mais man gisuma fii discours bu changé man en tout cas. le soutien est toujours là. à 100 pour cent il est clair il est clair man xam nga man li ma waxoon tant que bu ñu gisoon Kaffrine mu yëkkati loxo Amadou Ba waaye qu'est-ce la confiance du président Macky Sall il il mourra à ses côtés c'est mm -hmm. clair moi je suis dans aucun jeu dans aucun clan dans aucune bataille la bataille de la préservation de notre régime je suis dans la bataille de la de la continuation de ce que Macky Sall a fait ça a mm-hmm. fait ici et am na ñu bëri ñuy wax oui Macky Sall boo defee nii ma man nekkuma ci loolu et ëllëg danañu seede ku am conviction ak ku amul conviction ëllëg dinañu seede. Mhm. c'est ça le plus important mais ce débat là qu'on veut installer dans la dans le Benno et dans le parti n'a aucun sens aujourd'hui nekkuñ ci loolu réew mi fu mu toll fii ku nekk ci petit débat yi yaa nax sa bopp waxtu bu jotee ku ci nekk dana assumer responsabilité